une coordination optimale de l'action gouvernementale. Le nouveau gouvernement mis en place gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les six prochains mois de, se, de concentrer ses actions autour des quatre orientations majeures Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Deuxièmement, prendre en charge les urgences économiques et sociales, la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la lutte contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes, ainsi que l'organisation dans les meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole. Troisièmement, veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. Quatrièmement, enfin, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'action prioritaire PAP 3 du plan Sénégal émergent avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je donne la général de la présidence de la pour vous donner lecture des membres du gouvernement nommés par le président de la République. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sont nommés Monsieur Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, Monsieur Elhaj Omar Youm, ministre des Forces armées, Madame Aïssata Tall Sall, garde ministre de la Justice, Monsieur Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Antoine Félix Ablaye Diom, ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Amadou Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Monsieur Mambay Kanya, ministre du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Serigne Baïcham, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Monsieur Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Éducation nationale, Madame Maria Massa, ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, Madame Fatou Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions, Madame Marie Khemes Ngom ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Monsieur Alioune Ndoye ministre de l'environnement du développement durable et de la transition écologique Monsieur Abdoulaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique Monsieur abdu Karim Fofana ministre du commerce de la consommation et des petites et moyennes entreprises porte-parole du gouvernement Monsieur Moustapha Diop ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Monsieur Pape Sanyambay, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Monsieur Modou Diagne Fada, ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Monsieur Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, M. Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, M. Daouda Dia, ministre de l'Élevage et des Productions Animales, M. Moussa Bokarcham, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Gallo Ba, ministre de la Fonction publique, et de la transformation du secteur public, Madame Victorine Ankedish Ndey, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur Ali Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame Thérèse Faye ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale. Monsieur Lat Diop, ministre des Sports, Monsieur Biram Faye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Monsieur Pape Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer, Madame Annette sek ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamadou Salih Sow, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Monsieur Elage Momar Samb, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. monsieur Issakha Diop ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Monsieur le Président de la République vient également de prendre un autre décret portant nomination de monsieur Mouhamadou Makhtar Sissé, inspecteur général d'État en qualité de directeur de cabinet du Président de la République. Je vous remercie. jërë ngeen jëf je vais faire un petit résumé wolof li jiitu lépp dañuy sant président de la république man ci sama wàllu bopp ci kóolute bi nga xam ni joxaat na ma ko pour ma jiite gouvernement bi en tant que premier ministre liggéey bi nag mu bëggoon ginnaaw assurer coordination gouvernementale bi maanaam fexe nu ñuy liggéeyee ba gouvernement bi yëpp mën a booloo doon benn gis-gisam muy vision ñu mën a fexe ba nuñ ko jëmmalee mu bëggoon nag ci juróom benn weer yi nga xam ni moo ñu desee ci fi ak élection yi mu bëggoon ñu jël ñeenti ponk ginnaaw li nga xamante ni moom la gouvernement war a def ñu jéem a baral loolu góor góoru loolu bàyyi ci xel bu baax a baax bi ci jiitu mooy gën a sàmm réew mi ndax àdduna fi mu toll dafa xaw a jaxasoo gouvernement bi war na cee bàyyi xel ñu sàmm réew mi bu baax a baax a baax ñu ngi jëm ci élection fexe ba élection yi yàlla yóbbuñu ci jàmm ñu def ay élection yu mucc ayib leneen li nga xam ni président sant nañu ko ci wàllu koom-koom ñu fexe ba nga xam ni lii yokk koom-koomu réew mi ñu gën cee taxaw fexe bu njëg yi ñu xeex ak moom ndax àdduna bi ni mu bindoo tey njëg yi yëf yi metti na lool rawatina yi nga xam ne dañ koy jënd ci bitim réew nee na na gouvernement bi lañ ca defoon nañ ko dolli gën cee taxaw wàllu xëyu ndaw yi ak la nga xam ne dañoo jëm ci campagne de commercialisation ndax nawet baa ngi bëgg a jeex ñu jëblu ci campagne te ñu bari ci ñun di dund ci mbay mi mu ne xëyu ndaw yi ak campagne agricole bi ni ci gouvernement bi taxaw li ci war yëpp ñu def ko leneen li nga xam ni président sant na ko gouvernement bi ñu war cee taxaw ci saasa jëm na lépp loo xam ne day tax réew mi am jàmm rawatina këru liggéeyukaay yi ñu jàpp li jëm ci wàllu njàng mi ci wàllu paj mi ak li nga xam ni gis nañ ko ci wàllu maire yi ñi liggéey ci collectivité maire yi war nañoo fexe ba jafe-jafe yi fa am gouvernement bi waxtaan ak ñoom ñu jëm ko saafara lépp nag ci kaw yoon ak loo xam ni du àndil réew mi benn gàllankoor leneen li nga xam ni gouvernement président sant nañu ko ñu war koo baral mooy xam nga ni président dafa am gis-gis boo xam ni 2014 la ko teg muy li ñuy wooye plan Sénégal émergent ñu xaaj ko ñeenti xaaj juróomi at yu nekk 2014 2018 am lu ñu ci defoon 2019 2023 mu am xaaj boo xam ni dafa war a jeex nee na na gouvernement bi taxaw ci li nga xam ni moom mooy jëm mille dix neuf deux mille vingt quatre deux mille vingt huit pour que plan boobu ñu mën ko teg ndax loolu rek mooy lii jëriñ askan wi loolu rek mooy lii ñëpp moom mais balaa boobu la nga xam ni gouvernement bi def na ko ci 2014 ba 2018 ak li nga xam ni gouvernement bi def na ko 2019 ba 2023 dinañ ko siiwal génne ko. waxtaan nañ ci ak ñi ci war a waxtaanal ñëpp ndax juróom benn weer yi passé yëpp suñuy service ñu ngi waxtaan ak borom xam-xam yi waxtaan ak acteuru société civile ak ñeneen ak ñeneen incha allah jox nañu liggéey bi dootul yàgg ñu siiwal ko wane fi réew mi toll ak fi président bëgg réew mi jëm incha allah loolu doon na loo xamante ne bokk na ci mission yi nga xam ne président sant nañu ko muy mission yu jàmm ginnaaw mission yi nga xam ne nag bépp gouvernement da koy def mooy toppatoo li askan wi di dundee ñuy sant président de la république bu baax am na koy doon li sant ci confiance bi nga xam ni am na ko ci man ba wax ma naa coordonné action yu gouvernement ci ndigalam incha allah dinañ ci waslu àq lépp loo xam ni mën nañ ko dinañ ko def doxal ko ci ndigalam ànd kook ñi nga xam ni ñoom lañu président booleel ndax liggéey bi ñu mën ko mottali. bu ngeen seetloo léegi waxuma ko ci français gouvernement bi am na benn ministre bu ci yokk muy wane la nga xam ni président bëgg na ko ci chemin de fer gis ngeen ni def nañ fi TER. ñu ngi liggéey pour TER bi jógee Diamniadio mën a yegg ba aéroport am nañu mbébét ci plan d'action bii di ñëw président waxoon na ko Thiès TER bi mën a dem ba Thiès tout comme gis ngeen ni saxaar bi nga xam ni nekkoon na fi doon dox sunu diggante ak Mali commencé nañ ko réhabiliter et incha allah balaa at bi di jeex dina yegg ba Tambacounda gis ngeen xew-xew yi passé am na ay essais yoo xam ne def nañ ko fi saxaar bi di dem euh, Tiwaawoon demoon na Touba te Sénégal xam ngeen ni ci wàllu koom-koom am na ay alal joo xam ne yàlla baaxe nañu ko yoo xam ne xëy na buñ ko jaaralee ci otoraay bi njëg bi dina gën a yomb président nag jàpp ni loolu toll na foo xam ni war nañu am kenn ci biir gouvernement bi ku koy toppatoo mu dénk ko benn ministre muy Papa Amadou Ndiaye pour nga xam ni pour wan Sénégal yëpp wan askanu yëpp cër bi nga xam ni jox na ko chemin de fer te bëgg na chemin de fer yegg foofu ma leen di sant am na it euh, ñu ma koy fàttali léegi li nga xam ni def bëgg na ko ñu toppatoo ko ci wàllu xëyu ndaw ñi ndax jeunesse bi lu am importance la am na ay jéego yu bari yu ñu ci dox mais liggéey bi des na dinañ ko gën a baral gën ko yokk ginnaaw bu ñu defee évaluation li nga xam ne jot nañ ko fi def ci xëyu ndaw yi ndax gouvernement bi def na ci alal ju takkoo takku am na ay emploi yu baree bari mais ni ko président bëggee action publique bu ñu mënti poser bu mu mënti nekk ci secteur bu mu mënti nekk bu plan bi jeexee dañuy jàkkaarloog waa Sénégal yëpp jàkkaarloog communauté internationale yëpp nekkat alal ji la ñu amoon lii lañ ci def nii lañ ko defee ku nekk wax ci sa xalaat pour que loolu bu ñu gisee li nga xam ni dafa doon dañ ko war a continuer ñu continuer ko bu ñu gisee it li nga xam ne ci biir action bi mën nañ ko amee améliorer loolu aussi ñu jublu ci ndax président li mu sant gouvernement bi mooy lépp lu ñuy def dañ ko def ci transparence surtout ñu waxtaan ceeg askan wi ndax ñoom dañuy liggéeya kon may sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier voilà je vais pas tout en français dit que effectivement le gouvernement a un nouveau ministre en charge du, du, du, du transport du, du secteur ferroviaire cela pour montrer toute l'importance qu'il attache au développement de ce secteur, où des investissements importants ont été faits. Comme vous le savez, il y a plus d'un siècle, un chemin de fer relié Dakar à Bamako. Depuis quelques années, malheureusement, ce rail s'était totalement dégradé et c'est la route qui avait pris le relais. Le président, dans sa vision, a estimé que le chemin de fer doit retrouver toute sa place. Et aujourd'hui, il y a un projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar Euh, Bamako, mais on s'arrêtera d'abord à Tambacounda. Et d'ici décembre, on aura effectivement ce chemin de fer. En même temps aussi, comme vous l'avez constaté, l'ETR est en phase d'exploitation. Euh, qui, et ce TR nous vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction en termes de nombre de personnes transportées. Euh, on m'a dit qu'il y a quelques jours, on a atteint 100 000 passagers en une seule journée. Donc c'est dire que le potentiel, il est là. le TR a été une, une vision du président qui nous permet aujourd'hui d'être en matière de transport ferroviaire, en tout cas au niveau des standards les plus élevés. Et ce TR va être poursuivi. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'accélération euh, de, de, de, la deuxième tranche euh, Diamniadio à IBD. Et il y a quelques mois, le président avait promis, lors d'un conseil des ministres décentralisé à Thiès, la poursuite des travaux jusqu'à Thiès. Nous avons aussi de fortes demandes en allant du côté de Bourg. Mais là, la décision n'est pas encore prise. Nos services de planification sont en train d'étudier toutes ces questions et le président de la République a jugé utile de créer un secrétariat un ministre auprès des, des, infrastructures en charge du transport. Vous le savez aussi, le Sénégal est en train de construire de nouveaux ports, port de Dakar, mais en plus du port de Dakar, il y a le port de Ndayan, de Sendou, tout cela préfigure d'un Sénégal émergent où on devrait quand même tout faire pour améliorer la mobilité. Et de ce point de vue, je pense que euh, la mise en place, en tout cas euh, au niveau du département des infrastructures, d'une entité autonome en charge du développement des chemins de fer constitue une priorité pour le gouvernement et nous allons nous y atteler. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci. Voilà. donc moi.